bismillah rahmaan rahim euh, fi ñu jëm ni mooy musdalifa musdalifa nag dañ fay romb amul fu ñuy wàcc naka noonu minan musdalifa benn la ci mashaa'ir wala mooy ñetteel bi gannaaw ujaay yi jógee Makka ba su juróom-ñetteelu fan bi fanaan minan julli fa julli juróomi xëy dem Arafa yendu fa ba ngoon timis jotee dañuy jóge Arafa waaye duñ fa jullee timis jógee toogee taxawee Arafa ba timis jot ba passé ba ba tuuti ci guddi gi dugg ci la yonentu sallallahu alayhi wa sallam jóge Arafa nag ànd ak saxaaba yi ñu naan ko julli jot na mu ne julli ci seen kanam ci yoon bi nag jëm Muzdalifa Zeyd ibn Xaarisata la nekkaloon ci gëlëmam gi Zeyd nee na yonent bi wàcc na sax jàpp jàppul woyof bi ñu yegsee Muzdalifa nag mu boole fii timis ak gee teel tëdd ndax bés ba ca topp muy bésu aj gu mag gi mooy bésu tabaski mooy bés bi gën a bari activité ci aj daanaka ujaaj ñoom duñ xam sax luy tabaski moo tax guddi googu dafay teel a tëdd ci musdalifa musdalifa nag am àll gerte ndeng la rek woo xam ne ñëppay tëdd ci suuf fanaan fa tuddee nañ ko Muzdalifa ngir li fa nit ñi di dajee wala liñ fay jóge jëm Minan wala liñ fay nekk guddi Muzdalifa nag buñ jógee Arafat ba bàññoo yegg Muzdalifa soriwaay bi juróom-benn kilomètre la diggante Muzdalifa ak Minan kon dafay nekk ñeenti kilomètre te Arafat mi nan ñaata kilomètre la ñu waxoon xam naa fàtte ngeen fukk fukki kilomètre te Musdalifa nekk seen diggante kon diggante Musdalifa ak Arafa six kilomètres diggante Musdalifa ak Minan quatre ci biir Musdalifa nag am na ba jàkka ju ñuy tuddee wala barab bu ñu tuddee al masharul xaraam léegi tabax nañ fa jàkk sax muy masjidul masharil haram di ñaanuwaay ci ñaanuwaay musdalifa yi ndax sama borom moo waxoon yonentu ne ko fa ida afadtum min arafatin su ngeen jógee arafa bëpp fadkurullaha na ngeen tudd yàlla inda al masharil haram yi fa masharul haram masharul haram di barab ci biir musdalifa léegi jàkk la ñaari ujaaji buñ fi ñëwee danañ fay jullee foofu nag Musdalifa nag dañ fay fanaan ci aj gi lu dul ñi nga xam ne dañoo lompañ feebar mbaa jigéen ñi ñoom dañuy yonentu sallallahu alayhi wasallam maye ndigal ci ñu teel dem waaye léegi daanaka ñu bëri ci guddi